salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant man nag dama taxaw fii tey comme jëwrinu kuréel 18 safar maanaam président justement kuréel gi lu ko tax a jóg mooy berne mooy seen objectif ndax sëriñ Touba bi mu bi mu sàkkoo bis bi dañu woon ngeen sant le ma ci yàlla li ko dalee ci ganaar ba ci gëléem ñun nag comme ay taalibe lañ te dañuy sàkku ngërëm ñu ni nag loolu sëriñ bi santaane woon nañ ci jéem lu nu man looloo waral lii daal. lan jox ñiy jaar waa ñiy jaar fii nag lépp luñ xalaat ni boo ko joxee nit dina ci jot bakkanam ci ne ci lu neex moom dinañ ko jéem. lu mel nan. waaw lu mel ni bi ñu xëyee defar nañ ci ay ndékki ndékki joxe woon nañ fi ay mburu ay pain kafe meew bi añ jotee tamit togg nañ ay añ joxe ko. gis nga 5 heures bi mu jotee ñu ngi joxe ay sandwich ak ay boisson canette ndox bu ci kanamee tamit am na ay reer yu ñu toggaat avant ñu joxe reer itam am na ay caaki rek yu demee noonu yoo xam ne defaroon nañ ko te dinañ ko joxaat ñi nga xam ni ñoo jëm Touba ci màggal gi. Euh, koom gi tax ngeen di def nii fan ngeen ko jëlee. waaw koom gi nag murit daa am ci luñ ko yar mooy jaayante ndax biñ koy door bii mooy sunu ñeenteel bi at biñ koy door nag. xam naa ni ab benn cafetière café sax la woon waaye comme ñuy dem ñuy gën a innover di defar di defar biñ demee ba xam ni nag murit léppam buy dox ci financement lay doxee te financement jaayante rek moo koy def jaayante mooy def loo mënul biñ ci biñ xalaatee loolu nag ñu def ay cotisation at semaine bu jot ñu def ko de ay genre natt ku nekk di ko joxe buñ demee ba ci cëppaandaw gi ñu dajale li ñu am ak li nga xamante ni sunu mbokk taalibe yi nekk ci koñ bi dañu koy jàppale ci ci la ñuy sukkandiku pour def lii daal. bi ngeen di door lii ñaata ngeen yoroon. bi ñu door lii mën nañ ni amuñu woon budget amuñu woon budget ndax dañ doon wax kii na joxe lii ñu def ko naka première fois bi matul dix mille francs deuxième édition bi tamit noonu bi ñemee nag ba ci troisième édition bi ñu xam ni lii ñuy def comme bëgg nañ ko dañ cee war a def Pastef ci lañ ko wutal budget troisième édition bi. amoon nañ budget mais quatrième édition bi moom daa doublé boobu bu baax a baax. loolu ci ñaata. waaw quatrième édition bi daal xam naa nit ñu ngi dépensé rek mais xam naa ni bu mën la defoon estimation mën nañ ni dem nañ ba un million cinq cent daal waaw.